ak euh, foofee nga xam daanaka président Macky Sall jot na fa tànk-tànk daanaka tibb tànk la fa amal moom président euh, moom muy nekk euh, Bougane Gueye Dany yëkkati di ñaaw gi lee ndax dafay jàpp ne juróomi dërëm kese maanaam dërëm kese moom la yokk ci njëgu gerte gi lee noonu la ko yéen kaay gii Walf Quotidien xëy fesale leen itamit loo xam yéen kaay gii Walf Quotidien xëy na ko fesale mooy fichier électoral bi organisation élection yi di ñëw ñi nga xam ne ñoo di opposition bi ñi fësal daal seen xiini mi jëmale ko ci logiciel bi nga xam ne ni moo fas yéene contrôle parrainage bi lee ñoom daal la ñuy ci nguur gi di ko sàkku si njiité réew Macky mooy mu fexe ba jox leen lii di fichier de parrainage bi noonu maanaam fichier électoral bi noonu la ko <coughs> di wàllu fukkote yi fësal turbine la mu fësal yéene kaay gi la turbine open press tour 2024 moom Bougane na moom Bougane Gueye Dany mi ngi tubbi tànk ki nga xam mooy tey tànk président di ko gas di yóbbu neen daal bu yàlla defee mu jotee ci bopp réew mi lépp daal loo xam daanaka ay code la daañu ko xoolat noonu la ko yéene gi xëy fësale euh, ñaaw tamit euh, dërëm euh, noonu la ko yéene gi di la di kii di président Macky la ko yéene heures am gi di 24 heures na Bougane Gueye Dany ba mu demee fële ci diwaanu kii dugg jaaxle dafa jëlee li ko waral nag moo di situation bi nga xam ne askan bu dëkkee ci diwaanu kii dugg ñu koy dund te moo day euh, bés bu yàlla sàkk lu ci tolloog daanaka fukki ton ak juróom-ñeent ci or daañ ko fa jëlee yóbbu ko fa fay nga xam moo di ci diwaanu Europe loolu nag la fa war a wax ne bu jotee ci bopp réew mi dafay dakk noonu la ko yéene kaay xëy fës l'info ma ngay waaxu utali président Macky Sall ci askan wi ngir ñu bañ a sànnil seen xob Benno Bokk Yaakaar ndax sànnil seen xob Benno Bokk candidat Benno Bokk Yaakaar bi mooy kon Euh, dëggal euh, souffrance bi nga xam la ñuy dund nooy la ko yéen kaay gii di la ne ko xëy. yéen a kaay bii di 24 heures yéen a gii di la 24 le mandat ne. yéen kaay gi di la mandat ne moom a jël mooy xëy fësale leneen tamit di kaay gi xëy ngir mu xam ne xëy fësale yéen kaay gi ci laaj ak tontu gi dox ci diggante ak suñu naatangoo yi moom Aïda Mbodj ma ngi sàkk ñu woteel ko ndax woteel Aïda Mbodj mooy indi ay changement ci biir réew mi noonu la ko yéene gii di réew mi quotidien réew mi quotidien dafa xëy daal euh, mm. euh, bu président Macky euh, gii di réew mi xëy fësal le quotidien lu mu fësal bu dee yéene gii di quotidien dafa xëy xëyee dellu si waat ci téere bu bees bi nga xam ne nii moom ma jàmbal jaañ bind gi ne fu mu toll nii Amadou Ba la nga xam jot na ko am ci parrain toll na ci ñetti millions yu tegan ah. mm-hmm. mënees nañ wax ne ñeenti millions daal jot na ko ci parrain noonu la ko yéen gi di la soleil xëy fësale ay jàppante yu métti yu méttee mu am keroog ba nga xam ne doon jël ay parrain di ko jëbal ki nga xam moo di Amadou Ba uh-huh. loolu kon ma ngi amee fële ci département bu Kër Massar ab responsable naan Omar moo fa doon ak Youssou yi kon kaay a yéeme ko doon amalee ci teewaay man lépp mu ngi doon amee uh-huh. ci kanamu kii di Amadou Ba noonu la kaay wax ne uh-huh. dañoo bëgg a taxawal juge de liberté moom dafa jàpp loolu xel xalaatu ko nekkul sax li gën ci askan noonu la ko yéen gi xëy fësale quant ne ñuy wéy di critiquer justice bi ma di artu noonu la ko yéen a kaay gii di Sud Quotidien xëy fësale euh, stade Ismaïla Sarr di ñaar ñoo xam ñu ngi nekkoon ci ay club euh, olympique bu Marseille jëloo leen leen dugal seen biir fay si ñoom nag ay millions yu takku waaye dañu gis ne daal gars yi ndekk du ñooma ndax gis ne daal ba leen indee ci club ba léegi wane wuñu la ñu mëne tax yéen a kaay gii di critiquer euh, stade ji daal di amal ab taxaw yooyu la suñu lamb moom fu mu taxaw wax ci combat gi doxoon ci diggante Aliou